ndax euh, li tax ñu ñu ñu ñu ciy wax sëñ bi jamono toll na foo xamante ni mag ñi dañ daan wax ne ndaw ñi euh, ndawkat bu mu yàkkamti te mag ñi daan nañ wax ne teela a sotti baaxul teela a sotti mooy ki nga xamante ne amagul 40 ans wala amagul 35 ans bëgg a xëy yor alal ju bari wala bëgg tedd te ku am 60 ans mu ngi fi. amagu ko léegi boo forcé ba am loolu itam ah amaana bu ñëwee du gën ndax li ma li ma ciy wax rek mooy euh, boo seetloo bu baax a baax baax li xew léegi dafa mel ni xale yi dañ leen a xaptal tamit man sama gis-gis bu gàtt nguur am na ci part de responsabilité bu wér ñi ci ëpp ci àll bi la ñuy jógee ci dëkk àll yi boo demee Casamance wala Tambacounda walla Saalum wala Bawol wala Fuuta te loolu wax dëgg yàlla dëkk yooyu ñuy jógee war nañ ko mën a toppatoo. defar ko ba nga xamante ni ña fa nekk euh, dëkk foofu dinañ fa mën a toog tedd fa. Mhm. fu mel ni euh, Kédougou ah. Mhm. Sabadola or baa ngi fay jóge mais ñoo ñoo gën a sonn mhm. suñu waxantee dëgg rek sama digganteeg yàlla laay man dama dox Sénégal foog naa ne fu mu tegu sama tànk amul kon. loolu war nañ ci mën a jàpp te fu ci ne am na ressource yoo xamante ni bu ñu leen jàppalee tuuti tuuti dootuñ xalaat a dem. Casamance fruit baa nga fa yàqu est-ce que waruñ leen mën a toppatoo ba nga xamante ni dañ fa ubbi ay usines yoo xamante ni dinañ toog liggéey foofu ndax man sama conseil rek euh, ci ci ci gàttal am na benn jour euh, ma dajeeg benn xale tuubaa ma ne ko looy def fii mu ne ma damay liggéey damay def ambulant ma ne ko yow fi nga dëkk. dëkk bu bu bu kii la bu am xur la mu ne ah ne ko am na ndox mu ne ah ma ne ko man dama gis sama gis-gis bu gàtt kaay ma conseil la demal nga def fa soble loolu laa ko wax. Mm-hmm. mu mu mu am ndimbal dégg li ma ko wax dem def ko benn poté soble bu ndaw la def gis nga bi mu ko defee dem liggéey ko mm-hmm. ci benn trois mois moom bi mu récolté sobleem rek am na au moins que cinq cent mille wala lu ko ëpp. est-ce que mënoon na ko am ci ambulance bi mu doon def bi ma ñëwee mu ne ma yow da nga maa dimbale ba léegi may wax ak yow xalaatatul génn génn génn foofu mu ngi liggéey ak ñeneen kon ñun suñu paar li may wax ne ñun ñi yëngu ci wàllu aar bi muy ci ñi yëngu ci misigu diine muy sëriñ si muy ku man di doon lii sa rôle mooy fexeel soññee ñi topp sa yow soññ leen ne leen jarul dem ndax tubaab bee ñu gën a sonn sonn moo tax ñoom ñuy ñëw ñu leen di jox ay procès ñu koy ñu ñu koy liggéeyal te buñ seetloo bu baax lu lu ci ëpp di dem bitim réew fii lay jóge mais est-ce que buñ ko valorisé woon léegi du duñ ko du mën a des fii man daal loolu moo sama xalaat bokk na ci te ñu moytu géej gi géej gi jamono jii ñu toll nii ñu bon ñëpp a ngi ci géej gi te nu ñu mën a fexee xabtal xale yi ñu nekk ci géej gi rek xool déegi du saayir sëñ bi waaw loolu am na mag mu ko wax waaye man waxaat naa ko